ñu yàqule ñoom itam ñu yàqule bu fekkee da ngaa defoon ne amee nga laab nag ni amee nga jàpp daa leen jiite ba mu door a fàttali kon amee woon jàpp ñoom daañu baaxle du jar du jar ñu julliwaat waaye yow nga la jàppwaat nag daal di julliwaat ataani ñaareel bi an laa yàkkoon mooy mu bañoon a nekk ma mooman di maa moom ma ñaq te daa ko roy bi mas boo xen ci koñ raw aw bi ma mooman wala ci maa moom zannaxoo moom cortoon na ko imaaman mu ilimaan ba maanaam ki lay jiite julli googee bu fe ba mu doon koo xam ne njëkkoon nañ ko caa jiite loolu mooy tey bu ngeen ñëwanoo yéen ñaar ñu raw leen ci julli bu ilimaan salmalee kenn ku ne day fayal boppam ndax ku ci ne xasoon nekk maamu ma noppi su boobaa ku nekk day fayal boppam waaye bu kenn ko royee ci moroom rek kañ roy ca moom dana baaxle waaye moom mi ci moom nag moo du baaxle ndax daa fekk koo xam ne doonoon na maamu ci julli gi mu ci moom boo seenoon ko julli nga ne naa ànd ak moom julli ndekete yow moom day tolloo la ci jumaa ji rek wala day tolloo la ci jàkk ji xam ne kon yaa ngi roy ci koo xam ne maamam la ndax moom day roy ci jàkk ji te yow waaye moom julli ba julli boppam su boobaa moom dana baaxle waaye yow doo baaxle maanaam daal koo xam ne nekkoon na maamam ci julli lay tax boo royee ci moom mu baax mu ilimaan am ngant daal di koy wutal ngir mu mot li julli ga kooku moom dañuy taxaw taxaw ilimaan ja boo àndee moom itam daal di baaxle attaalisu ñetteel bi al islam moo di ak njulit maanaam ki lay jiite nekk ab la ci mu doon baax bu fekkoon ne ab dafa jiite woon ak julli kon baax le arrabixu ñeenteel bi ak ak ngóor fala tasixu du wér imaamatul marati njiitu jigéen mutlaxan ak nu mën di demee dañu sart ilimaan doon góor jigéen mënta jiite jigéen ne moom rawante na di jiite góor du ci farata du ci naafila bu dee mbulingaane sax mbulingaane mooy koo xam ne yàlla da ko sàkkal cërub góor yu sawukaayu góor ak cërub jigéen sax bu mën a jiitee alxaamisu juróomeel bi albolooxu moo ak kàllafe fala tasixu du wér imaamatu xayril baalixi njiital kudul mu kàllaf fil ci farata illaa li mislihi na reñeel moroomam maanaam ilimaan faawu war a nekk mu kàllaf bu fekkee day gone nga xam ne kàllafee gut mën naa jiite gone ne moom waaye mënta jiite mu kàllaf su jiitee mu kàllaf mu kàllaf moom mooy yàqule ne moom xale moom dana baax le waaye nag bu dee farata bu dee naafila moom mënees naa fekk gone bu mokkal alxuraan mu jiite naafila ramadaan te fekk ña koy jiite di mag waaye nag bu dee farata moom gone du mën a jiite mag asaali su juróom benneel bi alxaqlu mooy xel fala tasixu du wér imaamatul majnooni njiital ab dof wala sakaraan du caagéenu aji màndee maanaam kii jiite faaw mu ànd ak sagoom bu fekkee dafa dof bu ànd ak sagoom mbaa dafa màndi doonte la màndi araamul sax nga xam ne moom dafa naan rek am soow mu màndal ko mbaa garabu tubaab du tax ku roy ci moom itam doo baaxle asaabihu juróom ñaareel bi alxorriyatu moo di ak ngor waxiye moom chartun sart la fil jumaat julli jumaa maanaam bu dee julli jumaa dañuy sart ka koy jiite doon gor te bañ a nekk jaam ndax jaam léegi mu julli jumaa waru ko kon du ca mën a jiite gor mi war rek moo ko mën a jiite ak taamir juróom-ñetteel bi asalaamatu mooy mucc minal fisq ci ci caay-caay bul jaarixati cib cir fala tasixu du wér imaamatu zaani njiituk aji njaaloo wa shaaribil xamri ak aji naan sàngara dañuy sàrt ki jiite bañ di muy yàlla ci cëram te di ko fësal fekkee day muy di ko fësal laq-laqalu ko di day naan naan gu aay gi sàngara wala muy dox dox cànk tànk caaxaan waaye moom nëbb ko kooku ak njiitam du waaye wax ji gën a wóor mooy li fekk caay-caay ga ajuwul ci julli ga rek bu jiitee jiit ga dana baax su amoon ilimaan joo xam du def loolu mooy gën waaye ndegam caay-caay gi mu ajuwul ci julli ga rek du tee bu la caay-caay ga ajuwul ci julli nag niki moom maanaam boo nañ xëccoo jiite ci ca jàkka ji laata ñu koy julli kon day mel ni kon xëccoo bu fekkee xëccoo ga du alal juñ juñ cay fay koy jiite moo tax day mel ne kon ak rëy moo tax ñu xëccoo su boobaa mboolem muy xëccoo koo julli ci gannaaw rek du baax day aajoo la waral xëccoo ga doon rek alal juñ cee fay mbaay waaye bu dee daraja rek moom mboole ñu xëccoo koo julli ci gannaaw rek du baax ndax ndax caay-caay ga daa aj ci jëmm julli ga moo tax attaasimu juróom-ñeenteel bi alqudratu mooy attan xal arkaani ci ponk yi fala tasixu du wér imaamatul xaajisi njiitul aji lot xani rukkoo si rukkoo masalan ci misaal ila an yakun rek dafa nekk al maamum maamum aydan ba tey xaaji sandi ajlot xan walis surukoo ba tey day aajowoo ilimaan ji jiite bu mu tëlee ponk yoo xam ne ñoomuy jiite mën nañ ko su fekkee ilimaan dafa lu mënta jàng faatiha bu mën a jiite ku mën a jàng faatiha su fekkee ilimaan dafa làggi mbaa mu lafañ bu mënta rukkoo mbaa mënta sujjoot du mën a jiite maamum moo xam ne du mën a jiite koo xam ne moom mën naa rukkoo mën naa sujjoot su fekkee dañoo bokk tëli loolu nag waaw su boobaa kon mën na koo jiitee wa kazalika naka noonu alxaajis aju lot xan ahkaami salaati walis àtte julli maanaam koo xam ne xamul àtte julli muy farata yi xàmmee ko ba tey kooku du mën a jiite ku ko xam koo xam ne xamoo farata julli de aajowoo ngay ci koo xam ne xam na farata yi mu lay jiite waaye yow wala la jiite kenn maanaam day aajowoo rek ki jiite xam lay baaxal julli ga ak la koy yàq loolu nag bu fekk xamu ko waru ca jiite ku ko xam ak ka ko xam moo a jiite moo tax mu ne fala tasixu du xamu ko rek la mën a war a fekki xam mu jiite leen waxtu li fa wuuteef na hal tasixu ndax dana wér imaamatu man jiitu koo xam ne lam yu mayis mënta ràññeele bay nat doodi diggante ab dood fazaayi ak zaa wa imaamatul laaxini ak njiital aji yàq dañoo wute ci koo xam ne mënta def maxaarijul xuroof araxu ne mu génnee ko fam ko war a génnee ba mën ràññee lu mel diggante ak daad ak allah hmm, ak arab yi des dañ caa wute ndax ak njiitam dana wér wala du wér ak it koo xam ne bu dee jàng day yàq ci njàng ma moom it dañ caa wóote ndax julli gi dana wér wala du wér bu la jiitee waaye jàppal li gën a wóor ki nga xam daa mënta ràññeeli araf yi ci maxaarijul xuroof su fekkee ak tëli la rek moom du tee julli ga baax bu la jiitee itam mu baax bu fekkee dafa tàyyel waaye mën na ko nag tàyyel doo nga tee mu def ko nag kon bu la jiitee moom du baax aj yàq ji moom ji ci a wóor mooy ak lu mu mën di yàqi rek julli ga dana baax bu la jiitee itam mu baax waaye sib nañ na nga xam ko ba noppi ni diw bu dee jàng njàng ma da ci yàq ba noppi nga waaxu dem mu lay jiite nag loolu lañ sib waaye wax ji gën a wóor mooy mooy am nu mën di yàqi rek julli ga moom dana wér bu lay jiite itam julli ga dana wér wa tasihu dana wér asalaatu julli ga xalfal mu xaalifi ci gannaaw aji wutante fil yi ci bànqaas yi ak zanniyat yi ko ju njort bu nee bànqaas yi ko ju njort mooy attey fiq yi maanaam koo xam ne ngeen a wóote ci attey nga nekk ci ngirum Malik ak ku nekk ci ngirum meneen ngir mel ngirum Shaafi'i mën nañoo ku ne mën naa jiite morom ma moom la misaale kal Maaliki ni ki ko jóg Maalik xalfa Shaafi'i ci gannaaw ko jóg Shaafi'i nekk ngirum Maalik mel ni noonu mën naa ànd ak ku bokk ci meneen ngir kooku jiite ko mbaa moom mu jiite ko faslon shurootu sihhatil shurootu sihhati salaatil ma'muumi sarti wéruk jullit ma'muum xamsatu juróom la li nga wax léegi mooy ilimaan kay jiite lay tax am jiitam baax léegi na yow boo bëggee ànd kenn mu jiite la luy tax sa julli baax nga xam ne yow maamoom nga moom bariwul juróom rek la al awalu bu jëkk bu jëkk bi al iqtidaaw mooy yéene roy waxuma moom ay yan wooyu mooy mu yéene ne am na xoo naka moom ma moomun ku ñu jiite la bil imaam ci ilimaan ba wa am na salaataxoo ak naka julleem nga taabixatul aji topp la li salaati yi ñeel julleem nga fa in taabaxoo ndem topp na ko rek min xayri niyat ci dul yéene batalat kon yàqu salaatuhu julleem ga waaw nee na sàddu bi njëkk ci yow maa moom boo bëggee nit jiite la lay tax sa julli baax yow mi bëgg a roy ca kooka mooy nga yéene roy ci moom ca ba ngay door a tàmbali sa julli dëgg la sax doomi aadama moom lu muy def rek te ànd sagoom dana ko di yéene waaye dañuy bañ nga tàmbali woon sa julli bopp ci misaal gannaaw ba kenn ñëw fi sawet di julli nga daal jekki-jekki di wéy ca nga tàmbale woon daal di ànd moom yow it ci sa julli te xam nga ne xasoon nga tàmbali ci sa njëlbeen yéene woon ànd kenn ndax gisu woon kenn sax booba waaw kon ko loolu kon julli googu du baax athaani ñaareel bi allah ya tamma moo di mu bañ a rey muftaridun aji joox farata bi mutanafilin ci aji naafila maanaam day aajowoo bu fekkee farata ngay julli ku julli farata na yow rek jiite la waaye soo dee julli farata ba noppi dem roy ci kuy la mel na ngay julli ñaar rakk suba fekk ku julli yoor yoor ñaari rakk moom mu lay jiite suba waa du baax yow mi julli farata moom mu ñaar rakk suba ku julli yoor yoor mën naa dikk ànd yow xam ne naafila moo topp farata waaye farata toppul naafila ak taalisu ñetteel bi tax yattaxida mooy mu benn al fardaani yaari farata ya fii zuhriyatin ci nekk di aw xëy na xaal moom fala yu sel yi du julli jëxëran tisbaar xal fa xas lañ ci gannaaw takkusaan wala xàkk sax du càggeen subaan ba maanaam dañuy sart itam ngeen bokk genn julli ngeen di julli nekk ngay julli tisbaar mu julli tisbaar waaye mbaa nga julli takkusaan mu julli takkusaan waaye boo dee julli tisbaar moom mu julli takkusaan su boobaa ka jiite moom dana baax baaxle waaye ka ànd ak moom te fekk bokk ak moom julli gu ñu julli moom moo yàqule arabixu ñeenteel bi ay yettaxidaa tax ñu bennoo fil adaa yi ca jox ga wal xadaay ak fay ga jox mooy julli ci waxtu fay nag mooy fay bor xam waxtu jàll na falaa yu sal yi du julli zuhran tisbaar xada an ci ak fay xalfa man ci gannaaw ko nga xam ne yu sal yi dana ko julli ada an ci joox nee na bu fekkoon ne kii day fay tisbaari démb yow ngay julli tisbaari tey waaw su boobaa ku ci jiit sa moroom rek du baax ndax dëgg la tisbaar la kenn ku ci nekk waaye kii da ko julli goog tey kee di ko julli fay goog su boobaa ku ci jiit sa morom rek du baax alxaamisu juróomeel bi al mutaabaxatu mooy ak topp fil ihraami ci armal ba wa salaami ak salmal ba falaw ahrama doon te armaloon na aw sallama wala mu salmal xabla imaam ci njëkk ilimaan aw saawaaxu wala mu yemanteeg moom fii ci yooyu yaar batal kon yàqu salaatu foo juleem nga maanaam bi ko juróomeel mooy yaar yi nga bañ koo defandoo moom bañ ko caa jiitu mooy allahu akbar tàmbali ak asalaamaaleykum salmal yooyu yaar loo ko ci njëkk a def mbaa nga defandoo ko moom rek sa julli yàqu te aajo nga bàyyi ba mu armal nga def sa armal nga bàyyi ba mu salmal nga door a salmal wa amaa xayruhuma ndaal ku dul ñoom ñaar fa saqu jiitu ga fii ci moom xayru mubtilin du aji yàq laakin waxoo waaye moom xaraamun aji araam la wal musaawaatu te yamante ga yit fii ci moom makruhatun lu ñu sib la waaw nee na nag lu bokk teg allahu akbar armal ak asalaamaaleykum salmal nga njëkk koo def ilimaan nit nga koo rukkoo mbaa nga njëkk koo sujjóot araam mi ëpp naa def te yonante bi ñaawal na ko lool ci ko def waaye du tax nu julli nga yàqoo nga defandoo ko moom nag ba tey tàmmooñ ko dañ koo sib dañoo bëgg lu nekk nga bàyyi mu jiitu la ca nga gaaw fekk ko ca bala mu caa jóg loolu mooy lañ sopp faslu li ab dog la al afdalu la gën añ yàq fi mooy bu taxawee arrajul waaja alwaayu du jadi jenn xaan yamin imaam walis ndeyjooru ilimaan al isnaani ñaar fa saahidan topp lu ko xalfoo ci gannaaw te dañoo ñaar bu ñu àndee ñaari góor léegi na ilimaan ji féete càmmoñ maamoom mu féete te xaw a làng moom te bañ a moom dëgg-dëgg te xaw a deltu gannaaw tuuti nga xam ne bu kenn ñëwoon rek mu daal di deltu gannaaw da ko daal di yomb bu fekkee ni mat na ñaari góor ak ilimaan nag kon dañu bëgg ilimaan nekk ci kanam ñaari góor ñi baalu ko ëpp rang ci gannaaw def sàppe ci gannaaw watasixu dana wér salaatu ma amooma jullig maamoom ida taqaddama jiitu na alal imaam ci ilimaan ba laakin ho waaye moom yukrahu def na ko sib ida kaana dem nekk na lu xëy di darorat ñeel lu dul lor nee na ilimaan ji jiite nga dem ba làng dem ba làng moom te fekk na du yéen ñaar dong wala nga dem ba jiitu ko jullee ci kanamam lu mu ci mën doon bu fekkee lor waralu ko ñu sib ko fekkee loolu ko waral ni ki foofu dafa xat te naaju tàng yu demee noonu nag moo tax nga dem ba làng moom te fekk na ñeneen nga ànd yow ci julli ba baa nga dem ba jiitu ko jullee ci kanamam waaye loolu ko waral moom kenn du ko sibati wa tajoosu dana dagan asalaatu julli mun faridan mbir mu ngi aji beru ci gannaaw sàppi sa man nga ne mu aji wéet waaye moom beru benn lañ dafa wax ne yow dong nga julli ci gannaaw sàppi sa dagan waaye ci kaw nag mun laa dul ca sàppi sa su fekkee mën ngaa dugg sàppe sa moom boo taxawee ci gannaaw kon na ngaa daal tàmbalee def tàqale sàppe la ñuy wax te loolu sib ko waaye nag bu fekkee ñàkk nga ñàkk dugg ci sàppe sa moom ak ah, ñàkk foo dugg la moom du te nga am ngëneelul ku dugg ci sàppe sa danga am nga yéene boo fekkoon béréb dugg ca kon danga am dugg rek moo tax duggoo kon des danga am tuyaabay ku dugg ci sàppe sa wayu ko def na sib tafriqu sufoofi tàggale sàppe ya min xëy di darooret ci lu dul lor nee na sib nañu tàggale sàppe yi te mënoon naa ñàkk bokk na ci tàggale sàppe yi nag sàppe su njëkk si feesut ñu tàmbali seneen baa su ñaareel su feesut ñu tàmbali seneen te faaw rek seddaa war njëkk ñu war a tàmbali seneen waaye joosa na dagan ay yu bu jullee al maamoom ma fii makaanin ci béréb ala bu gën a kawe min makaanil imaam yi ci béréb bu ilimaan ba ilaa an yàq si da ndare bu dafa jublu bi daalika ci loolee alkibre rëy fa takkoonu kon dana nekk salaatu xoo julleem nga baatilat di aji yàqu nee na yow maa moom mën ngaa jullee ci béréb boo xam ne moo gën a kawe fa ilimaan di jullee ndax ilimaan nga mooy daraja waaye buñ la xasee jiite moom daanaka fa mën taxaw itam du taxat mu nekk daraja kon nag fa nga jullee mën naa féete kaw fa ilimaan jee jullee bu fekkee jubluwoo ci rëy nag waaye ba tey boo jubloo rëy sa julli yàqu ndax julli gi dañ koy def ngir oyofal sa bopp ak toroxlu toroxlul yàlla màggal yàlla kon nag boo ci jubloo réewlu rek mu daal di wuuteeg lañ jublu woon ci julli su waa julli ko yàqu walaa yajoosu su dagan añ yu sallee bu jullee al imaam ilimaan ba fii makaanin ci béréb arfan bu di gën a yëkkatiku mimma ci béréb ba nga xam ni xale yi nekk na ci ashaabuhu ay moroomam man nga ne mimma ci béréb ba nga xam ne xale yi nekk na ci ashaabuhu ay àndandoom waaw dafa wax ne imaan moom jëmmi jiite gi daa xaw a dara daraja su ko defee kon du mën a taxaw ci béréb bu gën a yëkkatiku fa maamum ya taxaw loolu moom du ko sañ inkaar ndeem nekk na fii gaal maanaam bu fekkee du ci gaal xam nga gaal moom léeg-léeg day def ay étage te gaal ñëw te takk ne faaw ilimaan mooy féete fii wala maamum mooy féete fee bu dee gaal daal moom ilimaan nekk fu féete kaw fa maamum ya nekk moom sib rek lay doon du aay fa inkaara dem nekk na yasiran di aji néew ka sibri lu toll ne ab sebre wala mu yàq si te jubluwut bi ci moom alkibir ak rëy fa inna salaata naka julli ga saxiixatan aji wér la waaw nee na bu fekkee ne ilimaan lu mu féetee kaw maamoom bariwul dara lu toll ne sebre rek la sebre mooy nii ñu xasab salaat bi su nee bu doo xasab itam am solo bu tolloo noonu te jubluwu ci rëy féete ga gën ngaa féete kaw lu toll noonu jubluwu ci rëy kon du wàññi dara wa in kaana nekk na ak sara di ëpp na min ci loolee batalat kon jul ga yàqu alayhi ci moom ilimaan yi wa alayhim ak ci ñoom maamum ya waaw maanaam la ilimaan gën a yëkkati ko fa mu taxaw maamum ya bu fekkee ëpp na lu wax mu ëpp na xasab mbaa sebre bi su boobaam day yàqu fekkoon ne itam ab sebre la mbaa xosam tam jublu ci rëy ba tey du ko tee yàqu bu tolloo ci sebre nag mbaa xosam te bu ci rëy nag waaw su boobaa nag kon du yàqu faslun li ak dog la aljumuhatu julli juma fardu xëy nin faratay jëmm la maanaam julli juma bu dee mukallaf tey gor julli juma ga faratay jëmm la ci moom mooy kenn mënu ko ko defaale faw rek moo ko mën a defal boppam wasa yu dox ga ileehaa jëm ca moom waajibun aji war la xalal ba yi di war aji sori xam la ni daay njëkk nodd ga di ci kem la nga xam ne yóbbu ko mën a jot julli ga wa xalal xarib bi ak ci aji jege bi zawali sams ci reccug jant xëy la waxees na ne bil adaani ci nodd ga dox gi jubluwu ci doxu sa tànk boo waroon oto mbaa nga war sarit mbaa leen tam baax dem nga lu bëgg a wax dafa waan dem ci jumaa ja mënta ñàkk war gar la ndax julli jumaa su koo tolloole kon faa war ngaa dem ci jumaa ja nee na boo soree da ngay jóg ci waxtu woo xam ne bu jàmm rek dabee bu jàmm rek dalee da nga àgg ba fekk julli ga ak xutba ba boo jegee nag moom wax ji gën a mooy mën ngaa toog a toog ba ilimaan ñëw ba ñu nodd ñaareel gi su boobaa nag loo jege jege jógal wuti jumaa ja ne boo nekkoon kër yi sës ci jumaa ji moom mën ngaa bàyyi ba ilimaan ñëw ba toog ci minbar ba ñu taamal nodd noddu ñaareel yooyu jamono nag moom faa war ngaa jóg am na sax ñu ne bu subaa jotee rek mën ngaa dal jóg waaye wax ji gën a wóor mooy mën ngaa bàyyi ba ilimaan ñëw ba toog ci minbar wali wujjoo bi xaa ñeel na waram nga sabixatu shuruut juróom-ñaari sart maanaam balaa julli jumaa war am na juróom-ñaari sart al awalu bu njëkk ba ak takkalifu moo di ak kàllafe falaata ji bu du war xalaa sabiyin ci gone wala majroon du jaageen ab dof wan xëy ma ak ku mel ne ñoom ñaar nee na mu kàllaf lay war waaye koo xam ne day gone mbaa dafa dof mbaa dafa tàggu sagoom ci waxtu ba waxtu jeex wala moom daf ñoo yemoo ba tey julli jumaa waru ko geneen waru ko ba tey attaani ñaareel bi alxurriyatu moo di ak ngor ci kaw loolu falaata ji bu du war xalaa xabdin cib jaam wala man du caageenu koo xam ne fii nekk na ci moom shaibatu xurriyati ndax ngor waaw nee na gor lay war jamono yi gor ak jaam amee gor lay war waaye koo xam ne jaam bu sotti la mbaa laal na ci jaam nit luñ goreel lennam bàyyi lennam mbaa kuñ jox àpp ne ko buñ ci àggee goreel la ak yu demee noonu yëpp tax julli jumaa war leen walakin waaye yustaxabu def na sopp loxo ñeel jaam bi wala sab ak ñeel gone ga xodooru xaa teewe jumaa ja waaye nee nag bu fekkee ne nag jaam bi am na ci ndigal kon daañu sopp mu dem ci jumaa ja gone gi tam bëgg nañ mu dem jumaa ja ndax mu tàmm ko ak taalif ñetteel bi ak zukooriyatu moo di ak góor wala tajibu du war xalam ra atin ci jigéen nee doon góor mooy tax julli jumaa war la bu fekkee dafa doon jigéen waru ko bu dee jigéen joo xam ndaw la te dafa waaj baajaay boo xam ne mën naa am sax mu jox mu jox fitna góor ñi kon day araam mu dem jumaa ja bu dee ndaw loo xam ne nag waajul deful dara sib ko rek yem ci bu dee mag xam ne kenn soxlaatu ko nag ci góor ñi kon su boobaa mën naa dem moom dana dagan ci moom arraabi ñeenteelu al iqaamatu moo di ak sax maanaam sax cee dëkk ba jumaa ja nekk mbaa foo xam ne soriwu ko ba mu war la mu nu caa ñàkk boo ko see nekk musaafir waratu la mooy falaata ji bu du war ala musaafir ala musaafirin ci aju tukki illaa an yeen ween dara bu dafa yéene iqaamata arbaxati ayaamin sax ñeenti fan nee na bu fekkee dëkk ba jumaa ji nekk da nga faa ñëwari tukki si fa te yéene woo faa am ñeenti fan kon julli jumaa gi waru la boo ko yéenee am ñeenti fan mu daa lay war alxaamisu juróomeel bi al istitaanu muy dëkkee bi mawdihin ci béréb yustawtanu boobu def na dëkkee fii ci moom juróomeel bi nag mooy maanaam bërëb ba béréb bañ nekk dañ fa yéenee sax di wéy xam ne amuñu dogu ci toxu nekk niñ ñu ko daan waxee pël yi nga xam dañuy topp rek di màngaan fi ñu daje rek gis fa luñ sàmmi ak ndox nekk fa bu fa amatul ñu jóg jàll feneen ñooñu duñu tabax jumaa fenn ci kaw loolu ndax yooyu yoon wuñ faa sax di wéy ndox mu ak sàmm ko rek moo leen fa bàyyi waaw kon suñ ñoo wax jumaa asaali su juróom-benneel bi alqurbu mooy jege jumaa ja bi su laa yekoonu ci foo xam du nekk mën xaa ca moom fi waqti xaa ci waxtoom wa xalaa ak sara ci lóob min salaasati amwaali ñetti mil juróom-benneel bi nee mooy bu fekkee dëkkoo ci dëkku jumaa ja kon nga jege ko jege boo xam ne daal moom war naa toll ci ñetti mil mbaa mu yées ko ñetti mil nag daanaka mil jege na kilomètre ak genn wàll boo boolee ñaari mil kon day daal di mat ñetti kilomètre boo ci tegaatee beneen mil kon mu daal di mat ñeenti kilomètre ak genn wàll daanaka daal juróom sox lañ koy xaw a takkee kon daal mën ngaa jàpp ne dëkk ba nga dëkkee bu fekkee dëkkul nekkul dëkk ba jumaa nekk su fekkee sa digganteeg moom juróomi kilomètre rek la julli ji war la su ko ëppee nag julli ji warul bu la def ko nag mu wàcc la maanaam tisbaar wàcc la waaye warat la da ko takk ci waxoo moom alxadru mooy kem ba ëllësi mooy ba nga xam ne waxoo moom alxadru ba ëllësi xam ne yeblu dana ko jot as sawtu kàddu ga arrafihu ngay aji yëkkati ko isa kaanat ndem nekk na arriyaahu ngelaw ya saakinatan di di aji dal wal mu addinu aji noddu ja itam nekk sawitan di aji xumbu kàddu day jéem a tolloo la ñetti miili mu ne la mooy béréb boo xam ne bu ngelaw li ne teg amul genn kàddu gu tee waxkat bi wax kàddoom sar yooyu jamono bu noddukat bi xumbeeg kàddu fu noddoom fu noddoom joti rek waaw fu ñu dégg nodd rek rek ñu war na nañu julli si waaye ndegam tolloo nañu ko ci ay miil rek te wax nañ miil moom ñaata la mayees naa sukkandiku ci loola wa mubdawul am yaa li tàmbalikaayu milie asalaasati yet yet minal manaari mi ngi tàmbalee ca soroor ba waxi la waxees na ne min tarafil baladi mi ngi tàmbalee catul dëkk ba loolu wuute bu rëy la ndax léeg-léeg fa jumaa jee nekk ak catu dëkk ba day soree xam nga fu mel ne Touba fa jumaa ji nekk ak dëkk ba fa mu nekk ni mu soree doy na war dañoo wuute ci nag ci booy seet juróomi kilomètres yi nga ne woon dëkk ba nga dëkk ak jumaa ja moom ngay seet ba xam mat na koom déet ndax dañ koy tàmbalee ci jumaa ja ba fa nga dëkk waaw loolu moo gën a wóor dañ ko tàmbalee jumaa ji rek moo gën a wóor waaye di su ko tàmbalee catul dëkk ba xëy ba jàpp wax wax bu njëkk bi mooy ci sorol ba la ñuy seet ba fa nga dëkk ba xam wal miilu miil alal mashhuri ci la ñu siyee commencé at yi ni mu xalsati dikke alfa diraahin ñaari junni xasab la nee na miil bañ ko xamagul ci ay mètre dañ daal ko tolloo ak ñaari junni xasab gannaaw bañ ko xamee ci mètre ñu wute ci lool kee wax lee kee wax lee kee wax lee gannaaw bi nga xamee ne mètre xew na bañ ci seet ba xam mil wala farsax nu mu toll wuute googu mu wax da cee am lool am nañu ko tolloole ci maanaam ne benn mil moo di mille quatre cent quatre-vingt-un mètres nga xam ne mil bi mooy ab kilomètre nga dolli ci quatre cent quatre-vingt-un xam ne kon jege na kilomètre genn wàll ba tey am na beneen tolloole boo xam da koy jàppe mille huit cent cinquante cinq mille huit cent cinquante cinq nga xam ne gis nga ne boobu tolloole moom ëpp na kilomètre genn wàll bu baax baax bay bëgg a mat sax daanaka hmm, ñaari kilomètre waaw ci nekk des na ko ci wax waaye nag dañu wax naa far sax mooy ñetti miil te dañuy wax ni dëkk ba nga dëkkee ak fa soroor ba nekk muy fa jumaa ji nekk bu fekkee dafa toll ci far sax rek muy ñetti mil walla far sax ak kaar muy kaaru far sax wala ak ceer ci nekk des na ko wax fekkee sa digganteeg moom daal foofu la toll kon julli si juma war la bu fekkee ne dëkk ba nga dëkkee bokk te dëkkub juma ji te gën naa sori loolu kon jum julli si jumaa du la war diggante boobu danañ ko wax léegi juróomi kilomètre waaye mën nga koo jàppee juróom-benn daal ba ci juróom-ñaar moo gën a wóor wala bokkoon nga jàpp juróom-benn boog ndax mu digg doomu nga ne daal kon sa digganteeg dëkk ba nga dëkkee ak fa jumaa ji nekk. su fekkee juróom-benn kilomètre la toll julli si jumaa war la su fekkee ëpp na ko nag kon julli si jumaa waru la xëy na juróom-benn daal xaw naa jaadu maanaam na am na am ñu dem boo wax juróom-ñaar sax xëy na waaye daal bu sori diggante boobu juróom-benn juróom-ñaar daal mën ngaa jàpp diggante boobu. li mu doon wax léegi itam li nattable ba xam ci juyoo ba ndax booy seet juróom-benn kilomètre yi mbaa juróom-ñaar diggante dëkk ba nga dëkkee. ndax da ngay seet diggante fa nga dëkki ak fa jumaa ji nekk wala da ngay seet diggante fa nga dëkki ak fa dëkk wayam xam nga loolu wuute bu soree sori la ndax léeg-léeg dëkk bi day rëy rëy ba nga xam ne boo seetloo fa jumaa ji nekk ak cat dëkk ba day mat ay kilomètre kilomètre kon nag nga natt diggante fa dëkk ba yem ak fa nga dëkkee yow du yem ak nga natt fa nga dëkkee ak fa jumaa ji nekk ci biir dëkk ba wax ji gën a wóor nag mooy da ngay jàpp rek fa nga dëkk ak fa jumaa ji nekk doo seet catu doo seet fa dëkk ba yam fa jumaa ji nekk rek ngay seet ak dëkk ma nga dëkk yow nu mu toll ak taxdiidu limité ga nag bil masaafati ca diir ba almadgoori ba biñ tudd lu neexee ni wat taxdiidu day daytal ga waaye moom limité ga benn lañ bil masaafati ca diir ba almadgoori bari biñ tudd innama huwa naka moom fii xaqil xaariji nekk na ci àqi aji génn xan baladi jumuhati walis dëkkub jumaa ba wa amaaman daal ka nga xam ne huwa moom fiihaa nekk na ci dëkk jumaa ba fa tajibu dana war xale ci moom walaw kaana ak doonte nekkoon na mil masjid di tàmbalee ci jàkka ja xalaa sittati am yaa juróom-benn mil nee na bi nga nee koo xam ne sa diggante jumaa ja daa toll juróomi kilomètre mu war la su ko ëpp waru la mu loolu bu fekkee dëkk ba nga dëkk nekkul ca dëkk ba nga dëkk bokkut ak ba jumaa ji nekk boobu la ñuy wax loolu waaye boo xasee nekk ci dëkk bi nga xam ne ci jumaa ji nekk nekk dëkk Ndakaaru wala Touba. te benn jumaa nekk fi ko itam loo sori sori rek war ngaa jéem a julli xam nga sa diggante jumaa bi motoon fukki kilomètre mbaa ñaar fukki itam waaye dëkk bi nga nekk ci la jumaa ji nekk rek moom war ngaa julli kon tolloo la gi kilomètre nag mbaa yooyu mu ngi mu ngi rek ci bu fekkee ndëkk ba dëkk bokkut ak jëkk ba jumaa ji nekk assaabihu juróom ñaareelu ba assihatu mooy wér na nga am wéru yaram moo tax jumaa war la waaye boo wéradee ba nga xam ne mën naa dem kon jumaa ji wàcc na la waaye falaata ji bu du war ala maridin ci aji tawat ba tawatee tawat joo xam tax na mën laa dem ci jumaa ja kon wàcc na la wa in saxa ndee wér na qabla an tuqaama njëkk dee fi ko taxawal lasimat ko kon mu war ko nee bu fekk wéradi yoon nga bu mën laa dem waaye laata ñu julli jumaa gi rek tànn nga bu mën caa dem kon ndegam tànn nga rek lay kon loolu daal di war ndax ngànt lu dañ na te ngànt bi moo taxoon nga sañ a toog loolu adaa iha ñeel na ak jooxam maanaam ñeel na ak wéram rek la ko wax arbaxatu shuruut ñeenti sart sart yi nga wax tax jumaa ji war la sart yi bëgg a wax nag mooy tax boo ko defee mu baax maanaam boo ko julee ñu ne ko wér na ñeent la al awalu bu njëkk bi al imaamu mooy ilimaan al muqiimu ji aji sax nam bokk na ca sarka yi tax julli ga baax ilimaan ji ko jiite sax ca dëkk ba benn mu dëkk sët mu dëkk fa waaye na fa sax mbaa mu yéene faa sax lu mat ñeenti fan fa saxee mbaa nar na fi sax ñe lu mat ñeenti fan ba julli jumaa war ko rek a su boobaa mën na koo jiite fala tasi xudur ab daadan ci ay benn benn wala bi imaamin du caagee lu ci ilimaan musaafirin ji aji tukki nee na nee na julli juma faaw mbooloo lañ koy def buñ ko kenn kenn du baax ba tey bu fekkee ilimaan ba leen jiite dafa tukki te yéen yu faa sax ñeenti fan kon xam nga julli juma ga waru ko su boobaa kon bu leen jiite itam du baax ab taani ñaareel bi aljamaatu mooy mbooloo wax ya moom mbooloo mi xayru maxduudatin du lu ñu limité maanaam du lu ñu daytal bi xadadin cib lim maxsoosin bari bu ñu ràññeel walaakin waaye laa tuji siw du doy min xaa ca mbooloo ma ak salaasatu ñett walal arbaxatu jaagee lu ñeent wama ak la nga xam ne fii ma ana daalika nekk na ci maxanaam